asalaamaaleykum mbokk yi gis ngeen liggéey baa ngoog liggéey bi nga xamante ne at mu jot mbooloo mi nga xam ne ñooy doomi dëkk bi ñoo àndandoo di ko liggéeyal Serigne tubaa gis nga bawun dara gis nga wëlis yaa ngi nii liggéey bi nga xam ne ndawi Touba yi at mu jot ñoo koy def muy waa Mouwahiboul Akyaas di ko liggéeyal Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké di ko yóbbu nag te sëñ Cheikh Saliou mu jox ko donga yi tey nag bawun dara gis nga liggéey baa ngoog camion lépp a ngi fi jege sil ñëwal ah gis nga tey jii gis nga ni gaa ñu génne mat laa yaa ngi nii bawun dara gis nga mbasin yaa ngi nii jëlal ma mbasin yi dañoo ñëw ba jëw andi mbasin yi tey mbasin yi nag xam nañu sëñ Seex Saaliw ku mas a wàcce alxuraan rek mbasin ya yim lay joxe ngi nii muy mbasin yu bari yu bari yoo xam ne gis nga ko mbooloo mi ñoo ko jël gis nga taxawaay gis nga murid saadax yi jàmbaar yaa ngi nii sëñ Tuubaa rek a leen yitteel waaw jërë nga ko dara desut. ñoo ngi siyaare mbokki jullit yëpp ci bis bu tedd bi di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di sant yàlla bu baax nag moom mi nu may nu fekkiwaat ko ren di ko ñaanaat di ko yàlla yalwaanaat di ko saraxuwaat mu bàyyiwaat nu fi ba nu fekkee déwén ak yu ko weesu yi ci kanamam yëpp Cheikh Mbacke ni ko waxee rek ñun ay jaami yàlla lañ waaye alalu Serigne Touba lañ. sëriñ Tuubaa nag mooy Cheikh Saliou Mbacké suñu waajur mbooloo mi nag moom ñun dañu ne ci kanamal waaye duñ ci dara yéene lépp rawatina ki nga xam ni ne moom mooy sama lépp di sama xarit di sama mag di sama lépp Moustapha ko àndal nag kooku moom ëmm ëmm ak fayam ni ma ñàkkee ak fayam nag noonu laa ko ñàkkee ci ñi ànd ak moom ñëpp kon li ci daal nañu bàyyi ba egg ci sëriñ bi incha allah ñu eggale ko. kontaan loolu di di xamal ni yëf yi at gën yokk ndax mbirum sëñ Tuubaa moo demee noonu ren di yokk nan lu daawul def rek def nan ko ren ji ah waaye sëriñ bi moo toll noonu ak liggéey sëriñ Tuubaa ah ma lay laaj ci ba xam nag loolu nan la waaye mbirum sëñ Tuubaa rek noonu. waaw loolu bu ci gis suñu bopp bu ñu ci gis suñu bopp ni ñu ñàkk a mane reesal nu ñu xeploo noonu la ñu mbirum sëriñ bi wax nga lenn lu ñuy tudd sëriñ bi jëmul kanam xawma ko te keneen xamu kon nag li lenn la ci pàcc yi ñu war liggéey sëñ bi rek kon faaw day yokk rek ndax yàllaa ko yokk ku ànd ak ku yokk nag doo mën a wàññeeku. jërëjëf Mbacke samay mbir ci dunya lu mujj ñëw ëpp la wéy ca mbóot ya lu nu wooteel sëñ mu dagg itam yëpp ñëw muy taxa waaye nag waayam jàmbaaram xaritam soppeem kum yàggal lool ñu xam ko muy Sëñ Lô liggéey bi mu liggéey ci liggéey bu am solo di ci taxaw taxaw am solo. moo tax bu wootee Touba gone yëpp ànd ak moom liggéey sëñ Touba bi kon nag Mountakha loo ci mën a seere ndax kontaan nañu de lii laal an mu jot suñu war ànd ak ñëpp def ci taxawaay am solo te sa xarit. Alaaji Seex Mbàkke lii dañuy ñaan yàlla ni nu ko tàmbalee mu egg ci alhamdulilahi mi na ndax chaque année dañ koy def Sëriñ Lo day ñëw ànd ak ay mbokki taalibeem ay xaritam ay wëlëreem ak i mbokkam ak taalibe Serigne Saliou moom nag boo ko séenee muy dox bul laajte sëriñ Saliou la bëgg moom lay wàllee waaye yàlla sunu borom it suturaal na ko ndax mën ngaa doonu murit ca ñi ngay àndal du ngeen bokkub gis-gis waaye moom fi ko yàlla sunu borom dimbalee mooy ñi muy àndal ñëpp dafa bokk ñoom gis-gis gis-gis bi mu am nag mooy sëriñ bàmba ak waa këram lu baax li nga xam ne daal moom la liggéeyal sëriñ Touba waa këram di ko ànd ak ay xaritam ak wëllëreem yàlla na leen Serigne Touba mi nga xam ni moo am fay cay fay ak borom Touba Serigne Saliou yàlla na leen fay. xam nga suñu ordinateur bu jógee doone Touba yëpp jóg ndax liggéey bi mu liggéeyal sëñ Touba dafay dëgg ci moom. ci àjjanay firdawsi ba ña ngi lay jotal seeni ngërëm te naa la yow yaay ndam li nga liggéey rek doy na ndam lislaam bi jël nga raaya ba waxal kanam tàndarma ya tapp nga sangub xawsu ya ndamul ci mboolem pàkk ya leeral te yaatal xutbu ba tapp nga koog liggéey na lool bu ëllëgee bañ di ko jal ñëpp a jaxaj ba sax ñu dul ña gëm boom bu tedd ba ku deeti sàkku luy sarax ngir xam bu ni mbir mu nax day bëgg a xew te dunu nax ci yàlla bu bu màgg ba ci gaayu baax ya fi newoon daa dajaloo ci yow sëriñ Saaliw doomi Xawsu ba lii lee waral Mouwahiboul Akyaas yi ndaw yi dëkk bii di kuréel goo xam ne dafa lëkkale ay ndaw yu nekkee ci dëkk bu sell bii Serigne Saliou Mbacke mu Alaaji Bara Fàllilu moom mooy ki jiite googule kuréel ñu mën ci ràññee ku mel ni Moustapha Mbacke Lo kuréel googu ñoo doon amal seenub ziar tey jii ci gaawu bi dëppoo ak fukki fan ci weeru tam xarit atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay gi yemoo ak le 30 septembre 2020 muy ab ziar boo xam ne yile ndaw dañuy dajale seenu ñàq fàggu ci ay jumtukaay yu bari yu mel ni ki ay cin ay mbana ay basan ay dàll waaye it bépp jumtukaay boo xam ne ab donga dana ko yittewoo ñu jébbal ko kii di sëriñ Cheikh moom Serigne Saliou Mbacke. ziar boobu leen nag ñi ngi ko doon amal ci kër Serigne saaliw gi nekk ci jumaay Touba. tarbiya jooy na nee na wooy fu may jëleeti sang buy defaru nit bañ leen di roy ci jaamu ak ci jàngu ba xel kooma Tuuba njàpp ndal ndookaala gën ak njibigel ngeejaan gota xabaandiwul ak ngaa bu jooy nañ sang ba say jikko moo de alxuraan say jikko moo de alxuraan kuy jéem xuus geeñ bambulaan yendu di dem ak di fanaan du tax mu jot asaka ba adduna ji boo fi maas foofu nga jëm itam sa maas du yombu foofa ndax sa yombu taam yow sang bi bu yàlla yàlla nag ñu fayal suñ waaja fóot suñ raggi xol yow mi nga xam ne yaa amal lépp lu am ci dend ba bu yàlla yow ñoo ngi lay dagaan xaboom ba moom nay walangaan leera ngëm kulla samaan ci barki sur yonente ba yi nga xam ne mooy ay suñu àddee sànni ko ci yow nga defal ko ci biir sëriñ bi ñu ñaan yàlla na mbooloo di ko wax suñu loo moom Moustapha Cissé Lo muy jàmbaar joo xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa rek ko yitteel ñu ànd doo at mu jot mu def nii bu mu demee ba toll fii ñu dajale suñu addiya moo xam suñu bool la moo xam suñu dàll la moo xam suñu yére la ak lu luñ mën a am rek ni nañ ko yot sëriñ bi mu defal ci liggéey seen saal yu bàkke bi ñu ñaan nga yàgg fi te wér ak nee moo suñu matelas la. nee na ak matelas yi sëñ bi damaa gàggante ne ak suñu matelas yi ah, waaw suñu yi. bëgg mhm. loolu na loolu dafa am ay xale gan yoo xam ne. Mhm. da dañoo wétliku lool. ñu mhm. leen a la ci daara ja. mu doon xalaat nag mat laa yu mu leen yu mu leen yu ma yu ma boole ak ñoom ñu demandoo. waaw kon xam ngeen ne am nañu taw tawféex. Ah, ndax sëriñ bi dafa wax ni. dafa am ay xale gan. yoo xam ne seen ñëw nañu. mu doon xalaat ay mat laa far ñu indaale mat laa yi. kon am nañu tawféex jërëjëf. waaw waaw. ay xale yu gan yu ñëw. war a dem ca daara a dem ca mu doon xalaat ay matelas ñu andaale matelas yi. jërëjëf Mbacke. kon sëñ Salim ngaa gëli des. Moussa. sëñ bi ah, waaw jërëjëf. ah waaw addee mbooloo mi la. addee mbooloo mi la. may ko dugg mu xool. toog leen rek toog leen cin yi ci la ak sijaada yi. yi. ak yére yi. ak satale yi. ak kopp yi. ak dàlli xale yi. ak bool yi. ak ay mbana. ak bali fëgg jaay. ah waaw. ma daal ñaanal ko ak oom ak di ko sa bàyyi bàyyee ba. mu ne ñoom ñu doon wax na cee boole doomi daara yi. nee na li ma wax léegi ni doomi dëkk bi. waaye ñu boole ci dongay daara yi. doomi daara yi doomi daara yi doomi daara yi. doomi daara yi. nee na xam ne nañ yittey daara lool ndax ñun doomi dëkk bi lañ waaye doomi daara lañ ndax xam nañ yittey daara. jërëjëf Mbacke. ne li ñu andi lépp doo ngay daara yitti woon nañu nee nii moom la ñuy taw nee na jëf ju demee nii moom la ñuy tudde taw feex nee ki ñuy jëfal yàlla na nu nangul nee ki ñuy jëfal yàlla na nu nangul gërëmal ñu te gërëmal mi ngi ñaan sëriñ bi. nee mi ngi ñaan sëriñ bi. sañ ca sañ-sañ ba ko sunu borom defal. ca sañ-sañ ba ko sunu borom defal. mu fàggul ñu ci. mu fàggul ñu ci. fu sunu yéene egg. fu sunu yéene egg. sunu man jote fa. sunu man jote fa. ak tawféexi jëf ji ak nangu gi faw ak ngërëm bi. Ah, ak tawféexi jëf ji ak nangu gi ak ngërëm gi kon ñoo ko déggandoo. nangu gi faw ak ngërëm li. jëwriñ ja daan na wax ni. nee na suñ jëwriñ ja daan na wax ni. lu mu bari bari laaj na jëf. wax lu mu bari bari laaj na jëf. waaye jëf nag na waaye jëf lu mu tuut tuut yóbbaale na wax. nee na ginnaaw gannaaw jëf ngeen jëf ju mat jëf. nee na kon ngeen fas rek te tàllal nangu ñaan. neen te fa nan fas rek te tàllal te nangu ñaan. jërëjëf Mbacke yàlla nañ fi yàgg te wér. ñun nag fa ñuy génn may na ñu fas yàlla nañ fi yàgg te wér Mbacke yàgg fee ñëw yàgg la fekk Mbacke amiin. léeg-léeg nga gis ku tilim te lii doon lu ñu miin bi sa bu ku nekk yor paaka mbaa ngóobaan ak ubbi doomam ba paaya daa sax ak paaya daa leen te ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi tawit ñu ngi ci troisième édition liggéeyub xelkom bi liggéeyub xelkom bi mooy lan mooy niñ doon àndee dem togg ay xéewal suñ tollee ci mbàcc mi yóbbul donga tar bi daaw yaakaar naa ñu ngi woon ci juróom benn fukki mbana ak eh, juróom 65 mbana moom lañ togg daaw yóbbu xelkom bañ fa jógee nii lañ ko doon defe ndax troisième édition première année bi sëriñ bi moo ñu waxoon ñu fekk ko ci ndax jàppoon na ne liggéey bu sëñ Touba nango la liggéey bu sëñ Touba nangu keroog fa la ñu yendoog moom ci poroxaan daaw ñu ngi ko fekk ci daar Xudóos bañ accès jàpp naa ne mbir la moo xamante ne ni ginnaaw tàkkusaan lañ ko ko yóbbul waaye sedd na xolam sedd xol goo xamante ne ni tey ji moo feeñaat ci ziar bi loolu nag duñ def lu sant ci mbokki taalibe yi ñi nga xamante ne ni góor jigéen mag ak ndaw dañoo bëgg Serigne Saliou gëm ko doyloo ko bëgg ko ci seen biir xol ba suñ nee liggéeyub Serigne bi ñoom ñëpp ñu fàtte seen bopp ñooñu lañuy sant ñooñu la ñuy gërëm gis ngeen tey ni liggéey bi toll noonu lañ fas yéenee chaque année ñu indee ko noonu. mbana yi lañ fi doon indi ay bool lañ fi doon indi ay matelas lañ fi doon indi ay basang lañ fi doon indi satala sijaada mais tey li ci yéeme mooy bébé yi soog juddu te nekk ca xel koom fàggu nañ leen xale yu ndaw yi fàggu nañ leen jigéen ñi fàggu nañ leen kon jëlee leen mag ñi dem nañ ba indi tey ay valisu jasneer ay mbase mbase yoo xam ne dañ koo ñaw ba pare moom sëriñ bi ci boppam mu wax ne dafa am mbir mu ci yéeme mooy dafa am ay gani donga yoo xamante ne nii doon na leen pare pour fàggul ay matelas far tey bi ñu ñëw ñu indaale matelas yi comme niñ ko defee daaw kon loolu tawféex la sëriñ bi moo ko waxal boppam moo ko wax ci làmmiñam tawféex googu nag dañuy ñaan ñu tajasee ngërëmul sëriñ Saliou képp ku teew ci siyaar bi daal sëriñ Saliou mi nga xamante ne ni moom lañ doon liggéeyal moo mën a fay yal nañu boole ak fay yal nañu boole aw yiw képp koo xamante ni teew nga fi moo xam sa ñaq moo xam sa doole moo xam sa dërëm moo xam sa xalaat moo xam même da ngaa ci bool yi dugal wala nga gàddu ci bagage dugal ñoo ngi ñaan ci jëmmi Serigne Saliou Mbacke pay gi ñu bokk ko ñun ñëpp. bagage ren dafa mbirum sëriñ bi moo demee noonu. parce que dama doon ñaan yàlla daaw bi ñu indee bagages am ay mbokki taalibe yoo xam ne ñenn ñi ngi Suisse ñenn ñi ngi itali ñoom ñoo amoon yéene yónnee ma ay bali fagu jaay waaye ñooñu jamono ji ku ne xam na ne bitim réew kofi moo fa am liggéey bi demeewul noonu mais Serigne Saliou ci ak ndimbalam may dox ba dal ci benn conteneur ci ndakaaru bu wàccee ay bagage yére boo fi gis kenn nit a ko jaay nga xam ne damaa daanu keroog soobu ci yeneen mur yi xam ne liggéey bi taam leneen ñiy jënd seen i bool indi Serigne Galas Kaltoom bu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci suba fukki mbana la ma yónnee Alla Ndiaye Mara Ndiaye ñoo nekk nit sama wet ay jëwriñ lañ yoo xamante ni bagage bi jóge Touba ñoom xam nañ kenn ku ci nekk liñ ci barkeeloo parce que nit ñi ci ñoom lañ ko doon jaarale kon loolu dañuy ñaan ñu yàgg koo ànd yàgg koo taxaw daje cee ngërëmul Serigne Saliou Akyaas ay yëngu-yëngoom mosu koo arrêté mooy togg xel xelkom yi togg dem yóbbu xel xelkom mooy doon waaj màggal gi màggal gi ren ku ne xam nga ne ndigal lañ ciy doon déglu sëriñ bi ni mu waxee ne noonu lañ koy màggalee noon lañ ko fas yéenee màggalee marche bu mag bi ñu doon def jàpp naa ne ren du waaye du teew dinañ toog benn tàkkusaan naan café sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul comme niñ koy defee chaque année suñu yoroon milliard wala ñu yor or dañ ko ciy def Touba dañoo pare pour participer ci ñun lu ñu am sëriñ bee ko moom amuñu dara mënuñu dara yoruñu tus mais li yor nekk suñu yor ñuy ay commerçant àlla marché occas lay xëy yor magasin Mara Ndiaye marché occas lay xëy yor magasin mais su liggéey bi dañ ma ne dañuy tëj seen i place dañuy dem ñu jàppale yulli seen poos li ci nekk ñëw indi man noonu laa koy defee ñi gëm ne sëriñ bi war nañ koo jàppale ci liggéey bi noonu lañ koy defee kon duñ tudd ay lii lañ ci def ak lee lañ ci def suñ amoon bateau chargé ko ay bagage ba mu feesee te li ci kanam raw li bët parce que chaque année ñi ngi ci troisième euh, édition bi chaque année bagage yi day gën a yokk bëgg nañ suñuy dem ba léegi di tegale ay dix camions vingt camions di ko sottal fii sëriñ Saliou parce que yéene boobu noonu lañ am yëg-yëg boobu lañ am bokk ci ñi ko liggéeyal kon yàlla nañ ci tase ngërëmal Serigne Saliou di sant rek di sant mbokki taalibe it bi ci jàpp yëpp euh, ndax euh, liggéey bi du ñuñ rek am na ci ñoo xamante ni gisoo leen euh, tegoo leen bët waaye amul benn yoon boo xamante ni jóg nañ ne ñoo ngi liggéeyal Serigne Saliou te defuñu ci seen wu ñaq Serigne Fallou Mbacke transitaire Serigne Fallou taalibe Serigne Saliou la ko gëm Serigne Saliou la noonu la ciy jàppee chaque année. Euh, ginnaaw bi ñu santee Serigne Saliou moom jëwriñ la Serigne Saliou bu moom Mahamadou Lamine Bara Mbacke moom mooy jiite kuréel gi mais Serigne Fallou Mbacke transitaire suma ko tuddee tudd ku mel ne euh, Abdourahmane Ba nekk ci port di jàmbaar joo xamante ni heure bu ñu songee liggéey bi euh, mu mu jëf ci jëf joo xamante ne nii ñun daf ñuy yokk fit daf ñuy yokk jom noonu la ñuy sante tamit président Moussa Cissé Lo président Moussa Cissé Lo ku ne xam na ne bi ñuy togg nda togg yi di dem xel kom dafa déparé Dakar ñëw def ci alalam bërki démb bi ñuy départ lépp luy mbase moom moo ñu koy wutal fàggul ñu ko yëkkati alalam def ca Serigne Gallas Kaltoum dinañ ko sant gërëm ko démb lañ ko woo ne ko liggéey bi ay cin moo ci des tey dafa xëy chargé fukki cin muy mbana yooyu noonu nga fa gis fukki mbana dix mbana la ñu xëy yónnee nee ñu suñ ca àggatee daa bëgg moom di sasoo liggéey bi kon Serigne Gallas euh, euh, Kaltoom ñoo ngi koy sant di ko gërëm waaye soxna yi dafa am ay jëwriñ yu jigéen soo tuddee jëwriñ yu jigéen ci Mawahibul Akyas sa xel day dem ci soxna maam Faati Sidi moom Cheikh Abdou Lahat dafa ñëw ñëwaat soxna Faama Ndiaye bu Serigne Saliou noonu la bëggee Serigne Saliou jëfam dafa ñëw ñëwaat soxna Musli Sall ñooñu ay jëwriñ lañ yoo xamante ne ñoom ay ay jigéen lañ mais dañoo bokk ci kuréelu Mawahibul Akyas di ci jëf-jëf ju am solo baaragay kilim owal ñoo ngi koy sant di ko gërëm ndax Euh, liggéey bi jëf na ci jëf joo xamante ne faaw ñu bàyyeekoo ak Serigne Touba mi nga xamante ni moom la yaakaar la ndaw lu am jom ndaw loo xamante ne ni Serigne Saliou dong la yaakaar euh, gëm ko dëkk ci dëkk bi di doomi dëkk bi di def ci dëkk bi saa su nekk kon euh, sëñ Mor daal loolu mooy liggéey bi nga xamante ne ni ñii ñoo ko ànd di ko taxaw yi soxna Fatma Lo soxna Fatma mënuma koo ñàkk ba nga sant moom it noonu la ci taxawee noonu la ciy jàppee kon daal ñoo ngi sant ñëpp sëñ fa sëñ Cheikh Mbacke Parma parking liggéey bi noonu la ciy sonne kon mbooloo ndaw moomu noonu ñoo nekk ñoo ànd ak ñun ndaw ñi di jël seen alal di ñu jox saa suñ leen soññee ci liggéeyub Serigne Saliou bi du ñu duñu duñu insisté dañuy xool la nga xamante ni mooy defar bés bi ñu def ko kon ñoo ngi sant ñëpp di di di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di baal àq di ñaan yàlla suñu borom ñu yàgg koo ànd euh, yàgg koo jébbal sëriñ bi xol yi daal sedd nañ fi mu toll nii jërëjëf